alaysat lu waaw ndax déet waaw ga xonaa fii waawal xatfi muy waaw ataf naxam waaw al waaw waaw ga xonaa fii xayru xaatifatin du aji ataf li ànd la xaatifata ngir naka waaw gay aji ataf taqtadi day sàkku istiraakal maatoofi bokkaaleeg lañ ataf wal maatoofi alayhi ak lañ ataf ca moom fii nisbatil hukmi ci askan àtte ba ilayhima jëm ci ñoom ñaar kama taqaddama naka mu jiitoo woon wal istiraaku te bokkaale ko xunaa fii ngayru mawjoodin du luñ fekk maanaam du lu am dëgg-dëgg du luñ fekk mbaa daal du lu am dëgg-dëgg li an na sayra ngir naka dox ga laa yumkinu du jàppandi an yastura mu bàyyi ko min tuluuxil fajri ci fenkuk fajar wal xubóoru teew ga itam laa tasixu du wér nisbatuhu askanam nga ilal xuroo bi jëm ca soba da ngay njëkk a xool yaari misaal yi nga xam ne moo jiitu surtout waxtu looxal fajri ak xadara muhammadun wa xuroo ba samsi boo ko xoolee gis ne la topp waaw ga muy tulooxa ak xuroo ba dañu leen a nasab nga xam ne topput la ko jiitu tarafaa ne ki waxtu looxa atafut ci tu ji ko jiitu tarafaa wa xorooba atafut ci muhammadu ñi ko jiit tarafa waaw loolu tax ndax waaw gi daa nekk waaw ataf da ngay wax ne li ko waral mooy waaw gi daa nekkul waaw ataf ndax ataf da ngaa waxoon ne waaw ga day boole la nga ataf ak lañ ko ataf ne mbir ma nga wax ñoo ca bokk yam loolu nag mu amul fii tey ndax xew-xew bi nga wax muy saara dox na fenku fajar gee mënta dox xadara teew na bi nga wax itam ñëw teew si soxu jant bi mënu ko kon boo seetloo xew-xew bi ngay wax fii doonul loo xam ne la nga ataf mën na ko ndax fenku fajar mënta dox soxu jant mënta ñëw teew ni ko Muhammad defee xam ne bokkuñ loolu nag mooy tax ñu xam ne waaw gi nekkul waaw ataf wa ida lam takun ndéem nekkut haadihi waaw gi le waaw xaati fatan di ajaataf fa maza takoonu ana lan lay nekk idan bokk idan kon inna naka nun law tadabbar naa doonte seetantaloon nanu ma anal mitaalayni maanaam yaari misaal ya la wajat naa kon mu fekk alwaaw waaw ga bi maanaa maa mu nekk ci maanaam maxa fii kullin ci kenn ku ne min huma ci ñoom ñaar fex yo moom waawun waaw la tufiidu day tegtale al musaaxabata ak àndaale wal maayata ak uk àndaale ba tey wal ismu lisim ba baxdaxaa ci gannaawam yekkoon day nekk man sooban di lu ñu nasab daa iman faw xalaa annahu ci kaw ne naka moom mafoolun maaxoo mafoolun maaxoo la bu ñu nee waaw gi nekk waaw ataf kon lu war a doon bokk mu ne na ngay seetlu ne boo xoolee waaw ga ci yaari misaal yooyu daa ay maxnaam ak àndaale ndegam daa ay maxnaam àndaale kon nañ koy tuddee waawul maaya waawub àndaale lisim ba ko topp itam dañ koy nasab jàppee ko mafhoolun mahoo kuñ jëf-jëf ji ànd ak moom lay doon ko defee àtteem nekk nasab wa ida ta amalta ndeem seetantal nga almitaalayni yaari misaal ya ab taani yayni aji ñaareel wa jatta nga fekk xonaak foofee istiraakan ak bokkaale fi xukkumi ci àtte ba doonal ismi diggante lisim ba ëllësi ba nga xam ne baax la waaw nekk na gannaaw waaw wal ismi ak lisim ba ëllësi ba nga xam ne xablaxaa nekk na ci njëkk waaw ga waaw jot te nga fekk taaniyal ismay ni aji ñaareeli yaari lisim ya taabi xam muy aji topp li awwalihima ñeel aj jëkk ci ñoom ñaar fii i'raabihi ci i'raabam fal waaw waaw ga ëllëti ga nga xam ne baynahuma nekk na seen diggante idan kon xiiw moom waawul xàpp fi moo di waaw ataf ga almaarofatu ga di buñ xamoon la ka ñeel la wala yumkinu tey du jàppandi an takkoona mu nekk an takkoona waawal maayati di waawug àndaale li an na kullan ngir naka képp minal fi'layni ci yaari fi'l yi taxaasama te mooy taxaasama xulloonte na washtaraka ak ishtaraka bokkaale na laa yumkinu du jàppandi sudóoruhu ak bàyyikoom min waahidin ci kenn ba li fi nekk laa budda mënta ñàkk min sudóoruhi ci bàyyikoom min mutahaddidin ci aji limu falaw kaanat doonte nekkoon alwaaw waaw ga li maayati di ñeel ak àndaale la kaana kon nekk maanaa zalika maanaam loolee ñu àndal fiix la naka fiixal ba ëllësi ba nga xam ne la yasduru dawul bayiko illa min mutahaddidin dara ci aji limu sajirun tay day aji bayiko la min wahidin ci kenn wa hadha tali ghayru ma'qulin du luñu xel manam du lu xel nango bo setlo taxasama ahmad wa hasan ak ishtaraka mahmud wa najib nga gis ne waaw googu moom waaw ataf dong la mën a doon ndax boole na ahmad ak hasan ca xuloo ga boole mahmud ak najib moom waaw gi ca bokkaale ga ni ki bokk société li ci mat a seetlu nag mooy boo seetloo maxnaam taxaasama xulonte na ak istaraka bokkaale na day xew-xew boo xam ne kenn képp du ko def faaw rek lu mat ñaar mbaalu ko ëpp ñoo koy def loolu nag moo tax waaw gi mënees ko jàppe waaw àndaale ndax boo ko jàppe waaw àndaale day mel ne kon taxaasama ahmad wa xasan ahmad rek moo def xulonte gi jëmmi xulonte gi ci moom rek la bàyyi ko ba tey istaraka mahmud wa najib day mel ne mahmud rek moo def bokkaale gi te xulonteeg bokkaale foo ko fekk lu mat ñaar mbaalu ko ëpp ñoo koy def kon nag dañuy jàpp ni waaw gi waaw ataf la di su ko jàppee waaw àndaale ndax boo ko jàppee waaw àndaale rek li muy tekki mooy xew-xew boo xam dawul bàyyikoo ci kenn paw daa bàyyikoo ci ñaar mbaalu ko ëpp tey nee nga ci kenn rek la bàyyikoo ka ca des da caa àndaale waaye xew-xew ba ci boppam moom kenn ka moo ko def loolu nag moo tax dañuy jàpp ni waaw gi waaw ataf la te bañ koy jàppe waaw àndaale wa isa tadabbarta ndem setantal nga wa isa tadabbarta al mithaalayni yaari misaal ya al axirayni yi aji mujj wajatta nga fekk al fi'l fi'l ba fi kullin ci kenn ku ne min humaaj ñoom ñaar yasixu muy wér yasixu muy wér an yakkoona mu nekk waaqixan di aji xew mina shaxsayni bàyyikoo ci ñaari jëmm ya maxan boole seen kama yasixu ni ki muy wére an yakkoona mu nekk waaqian di aji xewe min awalihima ci aj jëkk ci ñoom ñaar bu bi musaahabati taani ci àndaaleeg aji ñaareel ja waxal wecc ci anam ga al awali ga jëkk takkoon day nekk al waaw waaw ga xaatifatan di aji ataf wal ismu lisim ba ak taani bi aji ñaareel daal nekk mar foo waxan di lu ñu rafaa bit tabaan yeeti ci ak topp waxal taani boo toppee anamu ñaareel ga takkoon day nekk alwaaw waaw ga lil maayati di ñeel ak àndaale wal ismu lisim ba attaani bi aj ñaareel nekk man suuban di lu ñu nasab xala annahoo ci kaw naka moom mafoolu maahoo mafoolu maahoo la boo seetloo nag yaari misaal yi mujj muy saafara ibrahimu wa xaalidun ak naama ak tiflu wal murdixu moom day mbir moo xam ne boo seetloo xew-xew ba ka jëkk rek mën na koo def ku ñaareel ko fekk na ma nga ànd ak moom booba waaye ku njëkk rek ko def mën naa doon loo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk def niki Ibrahim mën naa moom rek moo tukki waaye Xaalid moom daa ànd ak moom rek waaye tukkiwut waaye teewul nag ànd ak moom Xaalid def na ko Ibrahim mën naa am itam nag Ibrahim tukki Xaalid du tukki xam ñoom ñëpp ñoo bokk def tukki bi bu ci topp itam xale bi mën nay nelaw fekk na ki koy nàmpal mi ngi ànd ak moom rek noonu waaye nag moom nelawut mën naa am itam nag xale bi nelaw ki koy nàmpal tam di nelaw ne moom xam ne kon boo seetloo xew-xew bi nekk foofu muy tukki mbaa nelaw moom ñaar ñañ ci teg mën nañ koo bokk di def mën naa am itam kenn ka rek def ko fekk na boobu ka ca des ma nga ànd ak moom foofu nag day mën yaar yëpp bu la neexee jàpp waaw gi waaw ataf nga xam ne kon boobaa ñoom ñëpp ñoo bokk def xew-xew booba te kon da ngay rafaa bu dee fii la topp waaw nga ndax la ko jiit dafa rafaa ngay wax saafara ibrahimu wa xaalidun da moom da ngaa bëgg wax ñoom ñëpp ñoo bokk tukkee fee nga ne naama ab tiflu wala mordion daal di koy rafaa da moom da ngaa bëgg wax ne xale bi daa nelaw ka koy nàmpal tam nelaw soo bëggee wax ne ku jëkk ka rek nag moo def xew-xew ba koy des daa fekk boobu mu ànd ak moom rek moom kon da ngay nasab ku ñaareel ki mooy ka topp waaw ga def ko ma fool maahoo nga ne saafara ibrahimu wa xaalidan ak naama ak tiflu wal moro dian bu ñëw ci alxawaidu waawul xatfi waawu ataf tufiidu day tegtale ishtiraaka ma bokkaaleg la nga xam ne qablaha nekk na ci njëkkam wa maag la nga xam ne ba'daha nekk na ci gannaawam fi nisbatil hukmi ci askan atte ba ilayhima jëme ci ñoom ñaar wal ismu lisim ba ba àndaxaa ci gannaawam yakkoon day nekk taabihan di aji topp lima ñeel la nga xam ne xablahoo nekk na ci njëkkam fii inxaraabihi ci inxaraabam waaw ataf moom yow mën naa xàmmee da ngay wax ne foo ko fekk lam ataf ak lam ko ataf ca moom da leen di bool dugal ci àtte ba ngay wax ñu bokk ci yem képp ci na nga déggee du leeral ne kee moo ci jëkk mbaa kee moo ca mujj mbaa nangam ak nangam loola moom leneen moo la koy xamal su boole yaar yëpp rek ci àtte ba ni nga ko weesoo woon ci bind ba jàll kon loolu mooy waaw ataf waawul maa yetti waawuk àndaale nag laa tufiidu du tegtale mooy du jëriñ istiraakama bokkaaleeg la nga xam ne xablaxaa nekk na ci njëkkam wamaag la nga xam ne baadaxaa nekk na ci gannaawam fil hukmi ci àtte ba ba li fi nekk te dullu day tegtale xalal musaaxabati ci àndaale wal ismu lisim ba baadaxaa ci gannaawam yekkoon dana nekk mansuuban di lu ñu nasab daa iman faw xala annahu ci kaw ne naka moom mafawul maawoo mafawul maawoo la waawuk àndaale bu yomb xàmmee la moom day safaanoog waaw ataf moom day wane ne la topp waaw ga bokkul ci àtte bi nga doon wax la jiitu waaw ga moo féetewoo àtte ba li topp waaw gi nag da caa àndaale waaye nag taxut mu mel ne cosaan la ñu yem ja mel ne boo ne aji nàmpal ji xale ba daa nelaw fekk boobu ma nga ak moom kon nelaw gi daa dellu rek ci xale ba waaye aji nàmpal ji moom boobu nelawut waaw max yee noonu lay mel nga xam ne aji nàmpal ji ànd naa xale ba ca ba muy nelaw rek waaye taxul moom mu nelawoo léegi-léegi itam nag bu dee dox ñu bokk di dox te fekk na kee mooy tukki kee moom tukkiwut ki am aajo ji ba jóg di dem lañ jàpp kay tukki ka ànd ak moom ki nga xam daa ànd ak moom rek waaye bu doon moom dong du dem kon dañuy jàpp ne moom ci àtteb ku tukkiwut la kee rek mooy tukki kii ànd ak moom lu mel noonu fi lañu jëfandikoo waawul maañ ya la topp waaw gay dañ koy nasab jàppee ko mafxoolu maaxoo tata xay yéen dina ràññeeku al waaw waaw ga lil maañ yetti ñeel ak àndaale isaakaanu dem nekk na xunaak foofee maane xun aji tere mel xat fi ci ataf su dee béréb boo xam ne boo defee waaw waaw ataf da nga jëmale mbir ci koo xam ne mënu koo moom mukk max naa ma dana yàqu su boobaa faaw nga def waaw ga waawu àndaale te bañ koo def waaw ataf mel ne yaari misaal yi nga njëkk a wax dox naa ànd ak fenku fajar da nga ne bi fajar di fenk booba laay dox léegi nag boo atafee ne surtout wattuloohul fajri da nga boole yaar wattuloohu ji nga ataf ci tu dañ koy ñaawlu ci naxu nga ataf ci damiri mu tasif te diggante bi teqaliwoo fa dara dara la ca dolli ko nag moom mooy sañu da jàppe ataf loolu kenn tañ si wax surtout wa tulooxul fajri ndax day mel ne kon surtout wa saara tulooxul fajri ma ne kon damaa dox fenku fajar gi tam dox te fekk na yow rek yaay dox waaye fenku fajar gi doxut fu mel ne foofu moom waaw kenn ko mën def waaw ataf waaw max yi rek la mën a doon tataay yéen dina ràññu ko al waaw waaw ga lin at fi ñeel ataf ga ba damaa ci gannaaw loo xam ne laa yeta attaa du jamtalu maanaam du mën a nekk wuquuhu xewam nga illa min mutaaddidin dara bàyyi ko ci aji limu bu dee nag max naa moo xam ne kenn képp daw ko mën a def foo ko fekk ñaar mbaalu ko ëpp rek ñoo koy mën a def waaye xel na nga wut ne max naa mooma kenn dana ko def lu mel noonu moom faaw rek waaw lañ koy atafee ni ki taxaa sama ahmadu hasan ak boo ne woon ixtalafa ahmadu hasan juyoo kenn mën kenn képp mënta juyoo waaw am ku ma àndal ku tax juyoo mën a sotti mook saawa mu waxaale na yu bare bari lañ wala tabaara ba dóorante na yooyu nga xam ne moom kenn képp daw ko mën a def faaw rek ab lim ñoo koy def fu mel ne foofu waaw lañ koy atafe ida saxa nde wér na al atfu ataf ga wala muy jib te warut jaasa kon dagan an takkoona bu nekkee al waaw waaw ga lil xat fi di ñeel ataf wa an takkoona ak mu nekk lil maayati di ñeel ak àndaale bu fekkee ne nag maxanaama boo ko atafee mu mën a nekk boo defee waaw ga mu ay maxanaam maxa bañ a nekk ataf itam mu mën a nekk xam ne yaar yépp daal mën na ko niki yaari misaal yi mujj joxe kon la ci neex rek nga def waaye nag su melee noonu nga ataf moo gën ndax ataf ga mooy cosaan bu ñëw nag ci tamarin yi jëkke at tamrin al awal bayyin leeralal al mahaniya maanaaya al muxtalifata yi aji wuute al mustafadata ya diñ jëriñoo maanaam ya diñ mën a déggee min ixtilaafi xorofil xatfi ci wuuteeg arafi ataf fil jumali ci jumla yi al aatiyati aji dikk jumla yooyu ngay seen arafi ataf wañ cey def rek mooy soppi maxanaama waaye baat ya formé jumla ja moom yenn yee waaye nag boo ci defee arafi ataf wee ak boo ci defee yeneen maxanaami daal di soppi ko mu bëgg nag nga teqale kenn ku ci nekk man maxnaa la amee baaxa jaay na alfallaaxu baykat ba ashahira lors wal xam ak bele xam nga foofu waaw lañ atafee léegi baykat bi jaay na dot lors jaay bele waaye waaw gi moom du teqale ba xam lors bi njëkk a tudd la njëkk a jaay door a jaay bele wala bele bi mujj a tudd la njëkk a jaay door a jaay lors waaw du teqale loolu baaxa alfallaahu ashaira fal xamxa foofu nag dañoo àttaf ak faa faa gi mu wane ne dañoo njëkk a jaay lors bu noppi fi saa suñu daal di jaay bele mu topp ca seen diggante sorewut baaxa alfallaahu ashaira tumal xamxa tumal lañu àttaf foofu mu wane ne béykat daa njëkk a jaay lors teg ca dir bu yàgg nag door a jaay bele baaxa alfallaahu ashahira awil xamxa dañu àttaf ak aw mën naa jamtalu moom mi wax wër na ko ne baykat bi jaay na loos mbaa bele waaye xamul nag lu mu ci jaay mën naa itam mu xam ba noppi bañ keneen xam xam ne mën naa doon sikki sàkk mën naa doon ak lëm ashahiran baaxa alfallaahu am xam-xam am day sàkku ak ràññeetle kii wax day laaj bëgg ko ràññeel baykat bi yaar yi moom wër na ko ne jaay na ci lenn waaye lan la ci jaay nag la bëgg koo ko ràññeel baaxa alfallaahu ashahira lal xam-xam nag dañoo ataf ak laa mu wane ne baykat bi lors la jaay waaye waaye jaayul bele laa boobu day génne la ko topp ca àtte ba baaxa alfallaahu ashahira balil xamxa bal di def idraab daa njëkk saxal ne baykat bi jaay na lors daal di koy bàyyi nag ne déedéet bele kay la jaay jaayut lors maa baaxa alfallaahu ashahira laakinil xamxa foofu nag mooy laakin laakin moom àtte bañ dàqoon mu jiitu ko da koy saxalal li ko topp ndax maa mi dafa dàqoon ne baykat bi day jaayut lors laakin moom day saxal ne bele mee kay la jaay nga xam ne dàq ko jiitu woon moom laakin da koy saxalal la ko topp muy maatoof ma at tamrin at taani bàyyin leeralal fi ayil jumali ci ban ci jumla yi al aatiyati te taxa yéenu lay ràññikoo al waaw waaw ga lil atfi ñal ataf wa fi ayiha ak ana ban ci ñoom te taxa yéenu lay ràññikoo lil maiyati ñal àndaale wa fi ayiha ak ana ban ci ñoom yajuus lay dagan al amraan yaari mbir yépp daa bëgg jumla yi nga seet bu baax am na ci jumla yoo xam ne waaw ga ataf dong la mën a doon am jumla yoo xam ne waaw ga ak àndaale dong la mën a doon am jumla yoo xam ne nag waaw ga mën naa doon yaar yépp loo ko ci jublu rek mu doon ko yooyu la bëgg nga ràññeel ko taxaana ka doqonte na xaalidun xaalid wa axuhu ak mbokkam kooku ataf dong la waaw gi man ndax doqonte googu mu tàmbalee wax ji kenn képp da koo mënut lu néew néew ñaar wala mbooloo def ko xara a jàng na muhammadun muhammad wal misbah ànd ak lamp ba waaw gi waaw max yi dong la mën a doon ndax boo ko attafee day wane ne muhammad dafa jàng lamp bi jàng te lamp bi jàngut ixtalafa wóote na ak taajuru commerçant ba wa wakiluhu ak délégué am foofu itam waaw gi ataf dong lay man ndax jiyoo moom ñàkk déggoo kenn képp mënu ko faaw mu def ko keneen mbaa ñeneen jalastu toog naa wal xamara ànd ak weer wa foofu waaw gi max yi dong la mën a doon maché naa dox nanu wal zalaama ànd ak lëndëm ga ba tey waaw gi max naa max rek la mën a amee saara dox na ak tilmise élève ba wal kitaaba ànd ak téere ba foofu it waaw gi ak àndaale képp la mën a doon najaxat at mi na suhaadu suhaat wa uxtuhaa ak mbokk mu jigéenam waaw gi mën naa ataf xibaar ne suhaat at mi na mbokk mu jigéenam at mi te doo xam nag te doo xam kan moo ci njëkk at mi ak kan moo ci mujj at mi mbaa dañu koo defandoo boo defee waaw gi muy ataf noonu lay mel soo defee nag wa uxtaxaa ànd ak mbokk mu jigéenam kon nañ ko àndaale ñoom ñaar bokk at mbeendoo naama nelaw na ax yi sama mbokk waaw jël la shajarati ànd keru garab ga ba tey waaw gi max ya rek la mën a doon jaa adikk na asayidu sang ba waxaa dimuhoo ak mindaanam man na ataf jaa asayidu waxaa ji mu hoo mën naa ne ko waaw max ya jaa sayidu waxaa dima hoo rakki ba war na asafina te gaal ga aliyun aliyu wa sadiquhu ak xaritam moom it noonu la mën na yaar yépp aliyun wa sadiquhu muy ataf ak ak wa sadiqahu waaw ami wax na maa at tamrin at taalis wa sitt diggaleel xoroofal atfi arafi ataf ga bi taaqu bi ci toppante bayna law zayil abwaabi ci diggante ñaari baat yi al abwaab ay bunt wa shabaabiki ak i faneetar wantiq te nga tudd bisima ci ñoom ñaar marfoo ay ni mbir mu ñuy yaari ñu dafaa tumma mansuubay ni topp ñu yaari ñu nasab tumma majruray ni topp ñu yaari ñu jar fii jumalin mu fii detin al abwaab ay bunt ak ay shabaabik ay fenêtre dafa bëgg nga indi leen attafe leen ñu toppante su ko defee nag yett yoon nga leen di indi da nga leen di indi ñu rafaa indiwaat leen ñu nasab indiwaat leen ñu jar niki boo nee haasihi yile al abwaabu wa shababiku foofu dañ faa rafaa boo nee ra'aytu al abwaaba fa shababika foofu dañ faa nasab boo nee marartu bil abwaabi tuma bi shababiki wala tuma shababiki rek mu daal doon suma التمرين الرابع بعتقل حرف عطف ملائم يأجيل بين كل معطوف ومعطوف عليه في الجمل الآتية ci mboolem jumla yu bëgg dikk bu ci nekk andi na maatuuf xale yi lañ ataf ca moom ak lañ ca ataf arafu ataf nag la andiwut mu seet bu bëgg nga seet fenn fu ne nga def fa arafu fa yella mel ne attu faaxan akalta mën ngaa def am foofu muy am xinaban wala reseñ xam ne kii laajte dafa bëgg ko ràññeel yow lan nga lekk ci yooyu yaar pom wala reseñ xasas naa gësam nanu ak shajarat garab ga mën ngaa def foofu faa muy fa saqata terot tamaruxaa meññatama nga xam ne bin gësamee rek garab gi la meññeen mi daal daanu fi saasa waaye nag gësam gi moo jiitu atuk mañ door ca top qara'tu jàng naa al kitaabu téere ba su fekkee da nga koo jàng soo ko jàngee dal koy dégg maanaam xam ko fi saasa mën ngaa tafa faane fa fahim tuxoo soo ko yéexee dégg nag mën nga ne summa fahim tuxoo kul lekkal al faakihata furuyu ba an naadijata bay aju ñor mën ngaa def foofu laa ne lal fijjata waxuma ba ñorut baax jaay na xaqaa raxoo lewam wa jaay na suufam sa mën ngaa def foofu xattaa ne xattaa manzilahoo ba këram nga sax jaayale na ko xasira perte na ak taajiru commerçant ba kula seen mét mbir lépp lëf mën nga ne xattaa sharafahoo ba teraangaam sax perte na ko ñàkk na ko maa qaabaltuhoo jàkkaarloo maag moom mën nga cee teg laakin qaabaltu wakiilahoo déléguéem batara jina alxabba topp ma mën nga ci teg mën nga cee teg suma xasada topp mu góob ndax fa ñu ji ak fa ñu góobi day soree maa xara a jàngul ak kitaaba téere ba kullaxoo léppam mën nga ne laakin waaye baadaxoo lennam la jàng akala alfaakihata lekk na furu ba man ngaa def foofu laa ne laa xishraha du ay xol itam lekkul xol it ya a anta faxalta haasa ndax yow yaa def lii man nga fay def am muy amul xaadimu wala mindaan mi koy yaag moom koo ci def xaddamtu jox naa présenté naa ilayhi jëm ci moom ak taxaama ñam wa man ngaa def foofu faa muy fa akkalahoo te mu lekk ko التمرين الخامس بعتقل معطوفا ملائما بعد كل حرف تغناوب أرف من حروف العطف في الجمل الآتية في موم دي اندي معطوف عليه لا أطف تمام أك أرف أطف waaye maatuf ci bopp nag la andi wut moom la bëgg nga andi ko niki banaa tabax na al amiru prince ba xasaran pale man nga caa teg wa masjidan ak jàkka ishtaritu jënd naa xisaan aw fas man nga ne summa rakibtuhu topp mu war ko axaataman ishtarayta am siwaaran ndax ab jaaro nga jënd man nga cee teg am siwaaran wala ab lam maa xarastu jëmbatuma ndax lan ay tàndarma nga cee teg laakin waaye alkarma garabi reseñ alkarma sa ala nii laaj na ma su aalan ak laaj bal nga seet loo ci teg fekk nga ne bal dirhaman ab dirham la ma laaj xasirtu xolli naa ak tufaaxa pamba mën nga cee teg wa akal tuxoo daxala dugg na al umaraawu prince ya mën nga cee teg fal wuzaraawu topp jaraaf ya ministère ya talay naa pentir nanu abwaabal mansidi bunti kër ga mën nga cee teg la shabaabika du caagiinu faneetar ya dahaba alxaadimu mbindaan ma dem na man nga cee teg laa saaxibul manzil du caagi borom kër ga borom kër ga moom demut xaraja génn na man képp koo xam ne fit daari nekkoon na ci kër ga man nga cee teg xatta sibiyaanu wa siyooxu ba sax gone yaag ñu màggat ñaa màggat génn nañu التمرين السادس باع معطوفا عليه في الأماكن الخالية من الجمل الآتية يمم lay ataf ca moom maxtoof alihi moo fi manki moom ngay war a andi nde arafu ataf ak la mu ataf moom yépp am nañu niki daa jekki-jekki na alxasiidata xasiida ga wa anshadaha te mu sodd ko man ngaa def anshaa sos na alqasidata wala allafa taalif na alqasidata wa anshadaha dafa sos xasida gi ba noppi walbatiku yëkkati ko ci làmmiñam man nga ne istaqbala teeru na ar raisu président bi al wusaraa ministère ya fal xulamaa topp way xam ña maa surtout visité wu ma dik nga teg ci alqahirata lakin uswaan nemmikuma keer uswaan laa nemmiko maa ma cheytu doxuma an nga ne miilan benn miil bal aha miilay ni yaari miil arsaltu ilayhi yónnee naa ci moom man nga ne kitaaban ab bataaxel ba risaalatan